metti na torop metti na torop parce que dañoo ñàkk ku seer si ñun xale bu baax xale bu ñu nanguloon xale bu am yar bu am teggin tey lu ñu dund tey metti na torop mais yàlla moo ñu ko teg ñuy nangu xam na yàlla du muy dogal jàmmun si dara waaye lu metti la si ñun waaw mbiru yàlla moom jàmmun si dara mais lu metti torop lañ dund tey waaw nañ lu méttee méttee métti waaye ñuy sant yàlla rek ndax lu mbon ban ay talibé baye lañu xamna ñu dund ak dé bénd la mais ñuy nangu dogal yalla rek di wax ni inna lillahi wa inna ilayhi rajiun allahumma aghfir la yalla yeeram ko jéggal ko metti na trop bu fu metti yam parce que suñu sañon dañ leen di jangal ba ñu mokal ñu delloo leen ñi leen joxoon mais num tuddu ak euh, kañ la xey ci mom tay la xey ci mom day ñew di liggéey fan yëpp nak ñom ñun ñëpp dañoo feebaroon ki ma dendal ni ñu koy wax mariama ak yeneen ñaari jeune fille moom Coudi ak beneen ku dëkk Léona mais fan si yëpp xëy suuñu parce que dañu xawoon feeba mais tey la ñëw tey xëy na lii la yàlla dogaloon si moom. mu ngi dëkk Saam fii kër Baba Agne oustaz Baba Agne moom mooy. Coudi la tudd Coudi Agne. Coudi Agne Coudi Agne waaw. déedéet amul borom kër amul doom amul dara xale la moromu kii la. dafa doon daanee doom waaw dafa doon ñëw rek dafa defoon ci benn école formation boo xam ne PF2E ñoom ñoo ñu ko joxoon pour ñu jàngale leen pour ñu former leen pour ñu mun a delluwaat si seen école pour mën a amaat seeni i diplôme moo leen fi indi woon tey chaque jour ce que bâtiment bi hmm. doon na leen euh, signaler que euh, nekk na ci état bi jotoon ngeen non non non mosuñu njott ne bi nekk na si état bi wax dëgg yàlla xam nga nag bu fekkonte ne ñun ñu ngi njott ne mu ngi ci état bi dinañ ko doon génn mais mosuñu ci xalaat li mosuñu ko ci gis tamit daal vraiment xëy na yàlla moo ñëw ak ay mbiram rek lan ci biir waaw ñun GIE la woon ñuy def transformation céréales et léegi et légumes moom lañ doon def si biir ak di fi jàng alxuraan def fi benn GIE def fi daara lu mel ne samedi ak dimanche ko doon def mujj bi ñu def ko alxames ak àllarba waaw loolu lañ fi doon def am na ay machine ci biir kañ ndax machine chassoir yeeg machine yi ñuy walee yëpp mu ngi si biir ak suñu bagage yi nga xam ne jotoon nañ ko produire yëpp a ngi si biir kon ñaar rek ñoo nekkoon ci ñaar rek ñoo fi nekkoon kenn ki jot a génn mais kenn ki la bi muy daw di génn la auto affaire bi ñëw si kaw. ki jot a génn. jot génn moom dem na dañ ko yóbbu seen kër. waaw ngeen ko dundee ci waa ji fii nii dama dégg affaire bi ne bëreet ma daw ñëw bi ñu dabee ñëw wax dëgg yàlla ñu gis dal bi dal bi rës ak dëgg ay yuuxu mais doo xam fu yuuxu ñu après ñu porte bi ubbi porte bi mënuñoo dugg ndax xeer dugal nañ ci xeer dugg nañ ci biir après yooyu noonu après ñu jéem a dajji bunt bi dajji ko xeer yi mën na la tere dugg après ñu ut mool dagg fenêtre yi génn vitre yi dugg di génn bagage di génn bagage di génn bagage yi si lañ am ay nit ñoo xamante gis nañ leen foo ñu génn leen quatre blessés la après ñu continuer travail bi di continuer di continuer si lañ yëkkati xeer gis am ku tëdd foofu wax dëgg yàlla affaire bi métti après bi ñu jëlee tisbaar noonu ba si kanam rek ay 3 daal blessé leen wér dëgg yàlla kii si ñàkk ba kanam yàlla xare ko àjjana en tout cas métti na trop na trop ñaan état bi mu gën a taxawaat xam nga gën a saytuwaat askan bi eh, si seen sécurité wax dëgg yàlla affaire yi métti na trop